li ñuy def mooy dem directement seeti yi nga xam ne mooy président Mugabe bi nga xam ne démb ca euh, réunion secret euh, bu euh, Nations Unies président Macky Sall jël na fa kaddu ba wax fa wax olof waaye tamit président Mugabe ak ñaari présidents yi nga xam ne ñoom la àndaloon kenn ku nekk am nga loo wax waaye Mugabe moom moo lakk daay ja ndax moom moo ne Afrique. suñu cosaan may ñuy dund mbiru góor jigéen maanaam d'accord ñu ko tey d'accord ñu ko ëllëg yéen américain yéen français yi li li ngeen aadoo ak lañ cosaan ñun cosaanuñ ko ba mu ko waxee nag saal ba ñëpp a tàccu Mugabe nag moom la ñu yaakaar ne bu Afrique doon continent boo xam ne dañu am président moom lañ koy wax ndax ful ak faydam bi nga xam ne am na ko ba jàkkaarloog tubaab bi yoo xam ne dëgg mag mën naa bàyyi ci réew le président le plus vieux du continent africain mooy Mugabe ànd ak président bi nga xam ne mooy Yaya Boni ak euh, Ibrahima Boubacar Keïta ngeen xool bu baax Ibrahima Boubacar Keita ak Yaya bu ñu taxawee mu Mugabe di wax ñoom ni ñu def seen kanam dañooy tiit instant boobu ndax dañu yaakaar ne Barack Obama war a waa Nations Unies dañ leen mere nañ leen dem seeti Monsieur le Président, okay. vous allez bien bien, bon. Ça va très bien. Eh, ma ma nekk président Zimbabwe Abdoulaye Wade rek moo nekk koo xam ne moom la masa jamono ci président yi de Afrique yëpp tubaab yi wax nañu ils ont dit que ne affaire góor jigéen nañu ko signé ñu ko nangu ci suñu continent bi jigéen gogo gogo jigéen jigéen jigéen gogo jigéen ak jigéen ñu bëggante go ak go ñu bëggante mu wax ne ñun Afrique war nañu signé loolu pour wane démocratie man de d'accord ma te nee nañu ku d'accord ñoom du ñu la jàppale ci li ñu am ci seen ala waaye ma Zimbabwe solo ma loolu ñoo bañ ñoo lank ñun Afrique suñu cosaan du go ak go go ak jigéen jigéen ak go ba gogo jige jige fala doom am go go go go ak go fala doom am jige jige fala doom am d'accord nga pour Mali am gogo go ak go. Euh, euh, vous savez euh, monsieur le président je suis vraiment content d'être ici avec toi mais il faut qu'on fasse doucement. Euh, non il faut qu'on fasse doucement tu sais l'Afrique est sous et sous sous sous et, et, et les, les, les Américains. Go à go Gogo Non, non c'est juste, vous savez, euh, droit de l'homme, et vous, vous savez. pas. Eh, Yaya Boune. Ouais, Américain ak tubaab nee naa ñun Afrique nañu signé go à go jigéen jigéen d'accord nga waa. Ouais, vous savez, pays Afrique, on a, on a démocratie en trop en Démocratie Afrique, il est trop en C'est pour ça qu'on essaie de, monter les choses doucement, Vous savez, l'érosion côtière. ma ne doy na ma ne man nekk président bi gën a màgget Afrique góor góor góor ak góor mu am doom mukk ci àdduna jigéen jigéen mu am doom mukk àdduna góor ak jigéen jigéen a góor. xamu nañu loolu xamu nañu loolu bu baax. Oh, oh, oh, ñu toog waxtaan wu jubóo waxtaan wu ñu dajaloo waxtaan wu ñu jubóo. américain européen. yéen tubaab yi li ngeen bugg ñu def ko si suñu aada cosaan ñoo bañ ñoo lànk góo ak jigéen jigéen ak góo jigéen ña ca jigéen ña bu jaaj boobu baaxul jigéen ña ca góo ña góo ña jigéen jigéen jigéen góo jigéen ñi ca góo ña góo ña ca jigéen ña capa ñama jigéen góo Il faut, il faut, il faut on organise une réunion. Il faut. Ouais, y a pas de. Eh, dama ne jigéen ña ca góor ña. góor ña ca jigéen ña. jigéen góor góor jigéen. il faut que il faut que il faut que il faut qu'on organise ça oui parce que il faut savoir l'Afrique est sous-développée. il faut pas les tubaab là ils vous trompent. vous pouvez vous développer sans les tubaab. la démocratie c'est pas l'homosexualité. la démocratie c'est pas l'homosexualité. il faut que nous les Africains on n'est pas de cette culture c'est pas notre culture dama ne jigéen ñi ca góor ña góor ña ca jigéen ña andi leen sëy bu ngeen am doom. jigéen ña ca góor ña. mais dans ce qu'est-ce qu'il y a leen sëy